moom suñu suñu frère la ah. suñu suñu xarit la aussi mm-hmm. xam nga Demba maa ngi maa ngi lay souhaiter bonne chance aussi ci li nga xam ne mooy le 24 décembre ah. bi muy def ah. Mantes-la Jolie warte kan dégg naa suñu bàyyi ñuy seetaan yu sa siri kumbalaw be Abdoulaye Daara Mbaar maa joor ak Matar fire mooy sa maam nday soxna dëgg-dëgg moom mooy sa yaay waaye ilimaan la ñu woowe sa baay yu so doomu yaayu Mara Dieng Sall kooko bëgg Serigne Babacar Sy Malick Bakri darab maan góor daanu wax bu ma rusul sama baay jë ku ma woo sama photo ma wuyu Youssa man de maa la de l'homme des trois générations baayu Birane Ndouré kooku mooy baayu baayu Ndelson baayu Vénus Ndouré yu sa mbokkum day coon balaago ma ñuy jooy doomu yaayu doomu yaayu doomu yaayu baaba ma lay doomu ndayu Ismaïla Lo magu Pape Cheikh Diallo jéere yi ma mojj baaba mojj bu ngeen taama baay goro Viviane baayu Zéna jigéen Youssou Nday Soxna Ndour Youssou yu Alla Junna Balde ah Youssou ma jigéen jaarama mbarode merci <laughs> li may wane euh, talent talent talent bi ci ndaanaan yi donc le 24 décembre King Fat Palace et puis euh, Sidi yaa ngi jëm euh, Italie mm. le 24 décembre le 1er janvier mm. ba le 7 janvier. Euh, Allemagne lan mooy lan mooy nekk message bi pour sénégalais yi fi nekk lan nga leen di wax ñu nekk Sénégal sénégalais yi nekk bitim réew lan nga leen di wax.